cay internet bi cay internet réseau réseau internet bi wala xam naa ne am na ci ñoo xam ni moom euh, saa su nekk rek dañuy fàtte bu baax li tax internet bi jóg ñi ci nekk ñëpp bari te wuute ca fasantikoo asalaamaaleykum wa rahmatullah Fall 94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaare bu baax di siyaare mboolem ki topp Fall 94 Walf Sénégal analyse chronique yi am na leen ko defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen ñu dellu siwaat ci internet bi rek ak ñi nga xam dañoo nekk ci biir internet bi ñu bari lool te nekk ci réew yi fasantikoo yépp te wuute lool nag kenn ku ci nekk ak ni ciy nekkee am na ñoo xam ne jàpp lu see rek moo leen tax a ci biir internet bi loolu yépp nag c'est parce que am na lu nekk ci ginnaaw mi business bi nga xam ne mi ngi ci ginnaaw du koy deñ di wax saa su nekk wala dugal vidéo wala def titre boo xam ne dina xam nga bëgg nit ñi ñëw dugg ci biir xool xam na am na ñoo xam ba la dugg ci vidéo euh, jàmbur dañuy xool titre bi ndax am na ñoo xam titre moo leen dugal ci vidéo am na ñoo xam ne tamit euh, ay miniature moo leen dugal ci vidéo maanaam euh, tag yi nit ñi nga xam dañ koy mooy photo yooyu nga gis nga xam ni dañ koy jël boole ko muy ay photo yu bari nga xam ne boo ko gisee rek da ngay daal di bëgg a dugg ci lii di biir vidéo bi loolu mooy miniature voilà ñenn ñi nag tiital waaye am na ñoo xam nag bu ñuy dugg looloo lañ tax ñu am ñoo xam bu ñuy dugg tiital am na ñoo xam dinañ dugg ci biir tiital baag la nekk ci biir day wute am na ñoo xam forte <laughs> lépp day wute maanaam daal mu nekk loo xam ni vraiment genre euh, diabolisation la yoo xam ne ci internet bi euh, ñenn ñi nag wax dëgg yàlla ni nekkee ci internet bi mooy diaboliser rek voilà di yàq rek ak di bëgg rek xam nga mbir mi di am ay tension yooyu noonu réew mi dañ ko bokk te dañoo war a bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo xiiroo ŋaayoo defaru ko waxtaan ba bokk ndey bokk baay xàccandoo di dóorandoo loolu mooy defar réew kenn ku ci nekk say àq ak say yelleef ñu delloo la ko ba ngay gis sa bopp bu baax a baax a baax ci réew mi kenn appelé wu fi kenn waaw ci réew mi réew mi ñoo war a bokk defar ko loolu képp mooy defar réew mi mais du xiiroo ŋaayoo de defarul réew mi dama koy wax saa su nekk du may dañ benn yoon di ko wax ndax loolooy dëgg voilà parce que ñii ñëpp am na seen i morom yi fi ñi fi nekk tey jii di xëccoo réew mi am nañu fi am nañu fi ñoo xam ne seen i morom jaaroon nañ fi tey ñu voilà dem nañ ñenn ñi màggat nañ ñenn ñi dem nañ rek ñenn ñi faatu nañ ñenn ñaa ngi fi des ba léegi talatuñ ko voilà kan ñoom ñii ëllëg it tamit noonu rek lay demee kan lan moo fi euh, sës ak lan moo fi nekk mooy euh, jël réew mi teg ci sunu kanam liggéey réew mi ñu bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo kenn ku ci nekk rek. Eh, nga nga nga nga nga xeexal réew mi eh, jàppal réew mi te bàyyi jàppalisation yi nga xam ñu ngi koy def saa su nekk ci internet ndax da ngay dugg ci yenn compte yoo xam di dégg ay nit ñoo xam la wax daanaka wax dëgg yàlla daray daray daray daray lu baax du ci am mooy jàppalisee daati xam nga ah, di di di di di di nit ñi fitna daal di wax wax yoo xam ne daanaka xam nga benn yaa ngi gis business booy def yaa ngi xool business booy def yaa ngi xool ñu euh, def ay vidéo yoo xam ne ni yaa ngi def ay ay vidéo yoo xam ni maanaam bëgg nga nit ñi di dugg say vidéo xam nga di cliquer di xam nga loolu yëpp nag nekk na loo xam ne ni nit ñi dañ ciy bàyyi xel bu baax baax a baax xàmmee leen ñi nga xam dañuy nekk ci internet bi di diaboliser nit ñi ak di manipuler nit ñi te daanaka mën naa la tax ñu koy def ay waxi kese la rek nekkul loo xam ne réalité la nañu moytu bu baax a baax internet bi nag daa bari ay façon yi ci nekk am na lu baax am na lu bon yàgg naa koy wax du may deñ benn yoon di ko wax kon nag yaakaar naa ni euh, lii nekkoon na loo xam ne nii danañ leen ko indil fii ci Fall 94 Walf Sénégal tey la dimanche nuy na ñëpp siyaar nañ la